asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki réew mi mbokki jullit yëpp ñu ngi ñëwaat ak yéen ci euh, laayante biir ndax addiinu nasiha ci xeexoo bi nga xam ne moo am mooy coronavirus bi ñuy wax ñëpp ne nañ jël seen matukaay ndax yonent bi la waxoon ne alwiqaayatu xayru min qintaari ilaaj moo di ne nañ fagaru fagaru gi nag li ñu ko mooy kenn ku ne na nga jëfandikoo lii nga xam ne bokk na ci di dimbali nit ki nga xam ne danga koy def say loxo di ko ci raxas soo toogee ab diir nga def ko ci daal di koy raxas boo nuyoo wala nga toog mat fukki minute daal di koy raxas say loxo ndax dina la mën a aar ci jàngoro ji ndax su boobaa kon léegi xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex mën nañu dimbali ba jàngoro ji dafi law kon daal li leen di dénk mooy di ko dénk suñ bopp seen mbokkum taalibe Mouhamadou Bara Fall nekk imaamu raatib Limay Touba Aliya moo leen doon ñëw doon leen jox benn conseil ci jàngoro yi nga xam ne moo fi am muy coronavirus ñu yàlla suñu borom subhaanahu na ko fi yemale ndax bala boo xam ne nii moo ko fi wàcce waaye tamit nañ jiital ñaan ak sukkri suñu borom waaye tamit jëfandikoo lii nga xamante ne nii moom la jëfandikoo ku ko bëgg rek soo demee ci pharmacien yi incha allah taala di ko fa mën a am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.